fois bi nekk si marché bu léegi moo fa def geste bi rëy te loolu vraiment tey de si lañ nit ñi ñëpp vraiment encouragement boobu Atoumane def ko rek moo tax tey lii ñëw fi tey kon euh, développement mooy jàppalante dumbalante suñu biir yaa ngi dégg loolu mooy àdduna kon Atoumane gis nañ sa liggéey yàlla yàlla may barke nga si kanam imaam nii loolu mu am solo euh, union la force mbooloo mooy doole maanaam lépp li ñu def nekk ko ñu xam ne liggéey mooy tax a jóg mooy développement mu doon Momar li xam ne moom usine jël la yor mais musuma ko wax benn baat mu mu ma wala mu gàntu ma déedéet ba mu ko waxee kon imam laa fekk ma ne ko ah wax amul problème ko wax mais ba mu ko waxee tegu sag baat nee na ma amet ñëwal suba ginnaaw suba ma ñëw jox la nga dem jënd moom tey nu ko defee noonu laa ko defee amul benn problème waaw mais mais ne leen mais ne leen jàkk yi lépp loo xam ne jàkk war na ko am loo xam ne si son utilisation def na ko parce que ki doon ancien rek kilifa kilifa ngay doon si marché kon moom moo ñoo jot a plan marché bi ma nga xam ne yàgg na yàgg na ci marché bi kon loolu mu am solo xam nga adduna xam li nga doxal mbooloo communication solidarité xam nga ñu doon benn li nga mbir si ñu doon ñëpp doonee benn rek li nga bëgg mu dox. te muy dëgg travaux yi mi ngay dem te euh, nii muy demee ay finition que daanaka ñoo si sax nekk léegi waaw waaye du te ñu joxe appel rek képp ku yàlla dimbali reeral la nga ñëw dugal si sa loxo ci néegu yàlla bi. képp moom amul xaaj seen muy ñi fi jiitu woon ak ñi fi mujj ñëw ñëpp kii daal néegu yàlla rek la néegu yàlla jii fi def nag ba yàlla mu def ñu ja ci néeg boo xam ne langa-langa la woon bu fekkoon woon du woon dëgg kon yàlla dugg indi ba fii dëgg moo ko tax indi kon yàlla dëgg rek la bëgg waaw ñuy ñaan yàlla it liñ fi nasiir it ñu wax maa marché bi ci boppam nu góor e jaamu yàlla ba a manqué waxtu waxtu yàlla wi te am yéenente nag seen jàkka ji dem ba benn jamono ku ñuy wax ab Ablaye loo ñëw bëgg a moderniser jàkka ji ñëw taxaw demal boppam maire yi waxtaan ak maire ñu defal ko ay kayit mu ñëw commencé sanc ba sanc yi toll fii mais Ameth Diop mii dëgg itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que moom li bu ñu xamee li yàlla ak moom la jël na mu fii ànd ak man maak asmalik mii yóbbuñu ba ci li am ay teraanga yu mu defoon ci jàkka ji waaye loolu jullit la jullit bu def ci jàkka danañ la ñaanal gërëm la dégg nga léegi nag mu commencé waat jàkk ji mel nii mu commencé waat indiwaat beneen matériel bu toll nii mhm. kon kooku dañ koy gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom mu defal ko jàmm li yàlla wax ci néegu yàlla yàlla bu ko ump yàlla bu mu ko ump d' mais yàlla bu mu ump Ablaye Lo mi nga xam ne moo commencé sanc yi bam mu egg fii mhm. te fas ko yéene continuer ba mu terminé na ñuy àggale ci suñu sago yi def lii nag yàlla miy fay yàlla na ko yàlla fay parce que lu toll nii néegub yàlla nga jël ay rajo ñëw indi ko fii ci jàkka ji yàlla mi fay yàlla na yàlla fay yow mi ko def ci barke Seydina Muhammad yàlla moom boo ko lebee naaj mu fay la ker Mor bàcc li moo def lii waaw nekk ci usine jën bi nekk Padoa doon tamit nit ku baax di def lu baax yàlla moom mu ngi noonu rek képp ku ko defal lu baax mu fay la ndax nee na néegu yàlla loo fa def lu bu ndaw ndaw ndaw ndaw bu koroog yomal xiyaame bu ëllëgee mooy sa àjjana ju leer nañ bu boobaa ay château lañ la koy defal ci biir àjjana yalla nako yalla fay yalla nako yalla jappale ta tamit ñi nekk si wujju tamit ñom ñëpp yalla na yàlla jàppale ba kenn ku ci nek li ngay li ngay sabab ci geej gi yalla may la ko aatumaa ngi nii nit ko bax la bo ba léegi macha allah lu fi ñew lu fi ñew teg ci loxom mu sédd ko ci yoon imam mi ngi ni Ahmed Diop tamit mi ngi ni aatu dal mom wax dëgg yàlla macha allah ñun dal li fi jot gis mention spéciale ndax aatu bu ko neexoon xaalis bi ñu ko joxoon temps mu lekk ko waaye lekk ko dafa woo doomu aadama yi mhm. séddale leen ko te yàlla tax mhm.